Euh, salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen ñi seetaan dal leen ak jàmm seen émission bi nga xam moo di penc mi comme ni ñu ko defee saa su nekk rek tey nag ñaam euh, invité bi nga xam ne moo di euh, Ameth laam ñu dalal seen plateau bi nga xam moo di penc mi am mbégte nag Ameth ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar Cheikh. di am mbégte loolu sa teewaay. Ah. di la bàyyi nga nuyu ñi nga xam ne lay seetaan. salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu képp koo xamante ne yaa ngi seetaan Saint-Louis télévision. di am mbégte ci dalal bi ngeen ñu dalal tey ci seen émission penc mi. Mhm. waaw ñu am mbégte loolu mu mel ne tey ku si mel ne man yàgg naa dégg Ameth ku si sama gars yi yàgg naa dégg Ameth mais des nañu xam dëgg dëgg ko mooy Ameth tey boo mhm. euh, mooy Mohamed Lam. Mhm. waaw Mohamed Lam mi ngi juddoo Ndar yaroo Ndar màggee Ndar jànge Ndar mm, pratiquement defee yëpp Ndar di. yëngu ci tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa nga xamante ni yàlla moo ñu dimbale euh, ñu judd si waaye nag nit judd na ci te mujj ko def mhm. ñu judd si yàlla boole nu ci mhm. kooku mooy Mouhamed Lam ci gàttal mhm. mu mel ni tey bu nee Mouhamed xel dañuy dem ci maanaam wàllum euh, njàng bu nee jàng xel dem ci jàngum diine est-ce que tey mën ngeen wax la mu dugal ci wàllum njàng bi jërëjëf euh, Cheikh léegi maa ngi koy brosé ci Euh, bi may tàmbali. Mhm. tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa dogal sunu ay waajur. ba mhm. sunu ki ñu jur directement mais sunu waajur yi jiitu maanaam sunu ay maam. ñoo ko daan def ku ne xam sunu maam Mamadou Lamine Ngom. Mhm. ak Cheikh Baye Ngom. Euh, ñu doonoon ay takkat yonent bi sallallahu alayhi sallam yu ñu ràññee woon yàlla dogal muy wàcc ba suñu waajur wu jigéen mm-hmm. euh, mu koy def euh, suñu yaay soxna ngoom yal na yàlla yokku leeram mm-hmm. foofu la mbir mi jugee ñëw ci ñun ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa mën naa ni du lu ñu wuti fenn deret la mm-hmm. li yi di wax deret moo ñu sonal c'est inné quoi waaw fa la jógee ñëw ci ñun donc gis nañu aussi tamit li nga xam ne tey bu ne amet Eh, lu gën a bëri ci sa parcours maanaam eh, ci wàllum jàng permettre na la tey nga génn ci yu bëri maanaam def nga ci ay tukki eh, def nga festival yi donc nan nga def ak tamit ndar fu mu toll parce que bu ne jàngi moom <laughs> ndar moom je pense que taxut level bi taxut yëg noonu yëpp donc nan nga nan nan nga def ba mën a ci festival yooyu nga xam daa nga si dem ak aussi tamit yenn programme yi nga xam yu mag yi nga xam ne daa la macha allah waaw yàlla dafa dogal nag ñu ñu nekk ci di ci nab na bi nank nank mhm. Euh, am ceek euh, ay xame mm-hmm. gannaaw bi ñu bokkee ci daayira Cheikh Ahmad Tidiane Diaw mhm. Cheikh Diaw ñu ngi koy nuyu mhm. nekk ci ci nab na bi nànk-nànk mhm. ba yàlla dogal ñu fasante kóllëre ak sunu benn xarit muy Cheikh Pape Sow Djibira maa ngi nuyuwaale bu baax a baax euh, ci xame boobu ñu faral di dem léeg-léeg di jàngi moom nag mu nekk euh, ku ñu yàgg bàyyi xel sopp ko ndax façon bi muy jànge euh, ak maam Cheikh sunu sang ba Cheikh Mamori Djimbira yàlla dogal nag moom ci boppam mu ben benn groupe international bu tudd Nourou Salaam. Nourou Salaam mooy moom la lumière de la paix. Mhm. Euh, mën naa ko sax euh, def exemple comme xam groupe Baobab. Mhm. nga xamante ni fu ne la woykat daan jugee ñëw. Mhm. bokk ci euh, groupe boobu. groupe Nourou Salam nag man maa ngi ci dëkk Ndar Pape Sow Jimbiram mi ci dëkk Dakar am nañu dëkk Kébémer. groupe boobu nag en général moom la ñuy faral di àndal di dem ay tournée international di représenter Sénégal. ci champ religieux bi ñuy def. Mhm. Euh, fofu lolou mo waral sunu sunu sunu sunu génn dañu adhéré ci benn euh, dañu adhéré ci ben groupe international bu Nuru Salam bo xamanteni momit chaque année mo organiser festival international de zikr moko jëk jëkk def euh, fi ci Sénégal di ci invité waykatu diine yu jóge partout dans le monde mhm. at mu nek yalla dogal ñu participer ci ak yeneen yi nga xamanteni mom lañuy andal di dem ci bitim rek ok kon mu mel mu mel mu mel bu ndégé bu baax donc. Euh, lu waral sa ay génn du du du rek ni ngay jàngee fi ndar donc da nga génn du am ci loo dugg ba mun la fësal euh, ba nga mun dugg ci yooyu noonu ci festival bi. waaw xam nga moom nag dafa baax rek ndax di damay wax toujours diggante euh, Dakar wala Kébémer ak Ndar bare na jànkat yu fi nekk. Mhm. kon xëy na ñun la yàlla dimbali ak kóllëre bi ñu am. depuis mhm. ñu nekk xaleel. yaakaar mhm. naa ne booba quatorze ans la ñu am quinze ans. di ànd ak moom. buy jàng si coté bii. Euh, ñuy ànd léeg sax ñuy jàng côté bu jege foofu ñu dem bokk ca daayira ba euh, ñu dem nag ba jimi jamono moom mu créé groupe international boobu. fii hmm. Ndar. Euh, non non. Dakar la ko créé Dakar ah, groupe international. mais daal ñëw di dem ak quoi moo tax mu dem ba gis la ci. très bien waa ànd bi hmm. yàgg. Hmm. mu sélectionné am ñu ci bokk. noonu la sunu tukki tukki noonu lay noonu lay noonu la noonu la noonu la amee. moom mhm. laa groupe bi ñu adhéré muy groupe euh, Nourou Salam mhm. noonu lañ ci adhéré bay dem macha allah fu ñu ci àdduna di représenté Sénégal. mais lu tax lu tax jàng bi jàng bi diwaanu Ndar a suuf parce que jàngu jàngu jàngu jàngu diine gi daal booy xool dafa mel ni dafa xaw a def lool lool lool lool fii ci diwaanu Ndar. man nag du ma ko tuddee sooxe man euh, est-ce que jàpp ma ni jàngu ndar fii la gën a avancé ndax njàng mi fii la tàmbalee de sëñ bi. ah mais xam nga tey tey tey di ngay déggee tey boo xoolee fi jànku yu gën mag. Mhm. yu gën a mag yu gars di coow boo boo xoolee ba ci biir dëkkuñu ndar ñun hmm. ay ndar ndar hmm. baa ñu fi nekkoon tey nekk fi hmm. ndax bu daan dégg Baye Abdoulaye ñu ngay dégg du genre wala extra mais yooyu déggutu fi tey mel na yéen ngeen am temps wu talent wu macha allah ndax mun ñu leen dégg comme gars yi ñu déggee parce nekk ci askan bi mais man loolu dafa ma jaaxal lan la dañ jàppalewul wala euh, ñaangi bi moo des wala lu mu fa demee mais Cheikh xanaa yow da nga suivre affaire yi gars ñu ngi dégg waa Ndar de comme ñan gars yaa ngi si suñ fi génération yi parce que man yow la dégg ko xamni euh, am nga chance génn dem Serigne Bande Sen abana ah, da jambar lo wa chaque année gis ngeen que euh, kazu rajab bi mhm. danaka tourner lay dem international mhm. sama nijaay cheikh tuna ngom bokko mhm. na ci ñeuk bu ñeuk dem tourner international ci jankat fi hmm? ak sunu tonton cheikh ndjay thioul ah mais ba léegi waxu goma ci génération bi de génération bi Euh, man xam naa ci Serigne Banda seen à part à part Serigne Banda Sène gisuma ci sama moroom yi xëy na man maa ci am chance su moom chance bi mu am muy dem ci bitim réew dem def euh, yooyu mais xëy na nag mi ngi ñëw incha allah rabbi bu ñu bu ñu yaakamte xëy na ñoom seen tour mi ngi ñëw. yàlla baax na mais mais je pense je pense aussi tamit c'est important ñi nga xam day nekk ci diwaan ndar ay ay jànkat ñu leen mën a génne di leen mm-hmm. soit bu fekkee dafa war am ay producteurs ñoo ñu wala du li nga xam ne moo war a mën a tax ñu génn ñu ñëw ñu ñu ñu si parce que am na solo. Mm-hmm. parce que mënu concevoir lu toll na ville dëkku mel na Ndar ci diine ci xam-xam. Mm-hmm. alors que tey say li ngay dégg waykat yu mag yëpp te doo doo leen ko déggee fii donc loolu tamit je pense que lenn loolu loo xam bëgg naa ko souligner si émission bi. Mm-hmm. bu ko defee bu dee wàllum si important. ok gis nañ aussi tamit yaa ngi euh, faral def chaque année benn programme bi nga xam ne mooy assura bi. donc si loolu laa bëgg dugg si maanaam assura bi. concept assurance lan ak la mo waral assurance jere jeuf spécial assurance cheikh xam nga yalla dafa dogal ma nek euh, jang kat bo xamanteni dafa am ben histoire muy xexu karbala daf ma intéressé trop mhm. ndax day daw sama yaram suma gisé nit bis bobu nga koy feetoo nenen nu bokul ak nin ko wara fété automatiquement damay japp ne da nga comprendre mhm. man japp ma ni bis gën na 10 bisu karbala mhm. ci kuy diine ku bokk ci lislaam du moins. non ak waaw. en général mais boo xoolee Ashura euh, Cheikh ma jox exemple yow jour bi nga juddo mhm. sa jour anniversaire. Mhm. wala jour bi nga takkee soxna. wala mhm. jour bi sa taaw juddo bis boo fonk lay nekk. mais ndegam doomu aadama moo mën a fonk loolu sa suma sunu boroom mi nga xamante ni. daanaka bare na lu mu def ci xew-xew bis boobu la ci tànn. xam nga ñu ngi wax sunu maam aadama. yàlla mi ngi ko jéggal jouru ashura mhm. maanaam tamxarit bi mhm. gannaaw bi mu ko sàkkee euh, mu nekk biir àjjana mu tere ko mu laal garab gi mhm. mata di doomu aadama mu laal garab gi keroog yàlla mere ko ba ni ko génnal sama àjjana ji keroog maam aadama di saraxu yàlla naan ka nan ka naan ka li yàlla jégal ma keroog suñu boroom naan ka maa xufira làkk duma la baal ndax ndax daf ko tere mu laal garab gi. Mhm. keroog bi maam Adama euh, jéggaloo jéggalu jéggalu lu yàgg mu gi xelam dafa am lu mu dem. Mhm. mu ni yàlla faxfirli bi urmati zuriyaati yi. yow yàlla maa ngi la ñaan jéggal ma ci sama wor may sët ba mhm. booba su euh, yonent bi salaahu salaam gane soogul àdduna ci zaahir keroog yàlla dafa bég ba ni moom aadama man huwa maanaam kan ngay euh, ndegam yaa tudd kooku kérok nak ci la ko mam Adama di wax nan ko lama khalaqtini wa amartani an arfa atarfiya ila sama mm-hmm. ni sunu borom kérok bi ma bindé dang ma dang ma ni won sigil xol kaw asaman bima sigé kaw Yak ma gis nga bind yaktubu ismu wa ismi muhammad dama gis kérok nga bind sa turu sel bi mm-hmm. toftel ci turu muhammad lolo tax man la djegal ma ci sama war mooy sët ba mm-hmm. keroog yàlla dafa contane ba ne gis nga bo tuddul won koko wala laa alimtu bihi mhm. du ma la baal ne kooku nga tudd bu dul moom duma la bind mhm. jour bi ko yàlla di jégal ashura la mhm. dégg ngeen sunu maam ibrahima xalilullah euh, keroog bi mu gaa yi dañoo mën ay yàlla yu bare di ko jaamu mu naan leen yàlla kenn la mooy ki ñu sakk ñun ñëpp bi mu bi gaa yi demee def caravane moom mu des sa dëkk ba ba toj yàlla yi gaa yi doon jaamu. mu des yàlla bu mag ba. Mhm. mu jël xërëm ba. Mhm. waaw xërëm ba. Mhm. toj seen xërëm yëpp jël jaasi ji. wéer ko ci xërëm bu mag bi. bi gaa yi ñëwee gis ñu toj yàlla yëpp dañ ni xale ba demul woon ca caravane ba la ñëw ci moom ni que sunu yàlla yi kan moo ko toj mun leen laaj yéen yàlla bu mag bi. <laughs> gaa yi ni que yàlla yàlla bi du wax mun leen ba pare ngeen bëgg ko jaamu. ah <laughs> keroog keroog gaa yi dañ ko gàddu. Mm-hmm. di ko sànni ci safara sax mm-hmm. keroog si la sunu borom di wax xul yaa naaru kuni bardan wa salaama ala Ibrahima. Mm-hmm. yow safara si nekkal jàmm ak salaam ci Ibrahima mii Ashura la woon. donc wala Ashura jóge. yon bari na yontu yàlla. Moussa mais Ashura Ashura Ashura tey ci ci maanaam ci tënk. Hmm. tey Ashura xam nga tey ku si mel ne man. sama hmm. jàng soragul sama gars yi ñoo yem dañuy taxawal nii rek. Hmm. mais Ashura. c'est-à-dire que lan boo déggee Ashura da ciy dégg le mot Ashura fukk. ma ngi ciy dégg. dix. dix fukk fukk mhm. xam nga léeg-léeg yi dañuy def fin d'année ñu ni euh, ñu ngi lay ndokkale ci at mu bees mi. bu dee mhm. ñun jullit ñi. Mhm. Ashura dafay nekk. weer wu njëkk ci at mu bees mi ci jullit ñi. Mhm. mais bu dee tamxarit bi dafay nekk fukki fan yu jëkk ci weeru tamxarit. Mhm. maanaam ñun tamxarit lañu war a nuyoonte di wax ni sëñ bi euh, déwénatiwaay ci at mu bees mi. Mhm. Euh, ashura lañ ko war a wax léegi boo déggee turu ashura rek da nga ciy dégg le mot ashura. muy fukk jour tamxarit bi nekk neuvième jour mooy juróom-ñeenti fan euh, ci bis yu njëkk yi. ashura bi muy tamxarit ba sa sa nekk fukkeelu fan ci weer wu njëkk ci weeru jullit. léegi lu tax nga choisir sa événement rek am am am am loo def rek nga ni sa laa koy def. waaw assura bi c'est parce que xeet yëpp bokk bis boobu maa ngi lay nettali léegi yontu yàlla Ibrahima. Mhm. am na ci yàlla am na ci xeet bu ko yónni woon mhm. yontu yàlla Muusa mhm. am na ci xeet bu ko yàlla yónni woon yontu yàlla Nuux yontu yàlla euh, yontu yàlla ayuba mm-hmm. yonent bu nekk mm-hmm. yàlla da la yónnoon ci benn xet mais yonent bi sallallahu alayhi wa mooy mooy général mm-hmm. moom la yàlla yónni ci ñëpp wa maa arsalnaaka ilaa kaafata linnaas maanaam yàlla daf ko yónni ci ñëpp moom du tubaab du nit ku ñuul du nàngam ñoom ñëpp war nañ ko màggal ndax kenn ku ci nekk yàlla xettali na sa yonent ci bis boobu looloo tax ma tànn ka euh, di wax ni jour ashura bi mais ki bokkul ci diine lislaam sax mën na ñëw di ko feetu ndax keroog yàlla xettali na yonent bi mu gëm moom waaye ñun nag Euh, yonent bi sallallahu alayhi ay njabootam. Mhm. ci lan leen leen ci lan leen rendi mhm. ci leen leen la leen rey muy xeexu Karbala ngeen dégg Ousseynou ak Assane mhm. euh, li ci gën a doy waar mooy kenn reyu leen ñoom ñaar ci benn at mi xam nga Assane ak Ousseynou euh, dañuy wax cheikh mooy cheikh yu magante six mois ay cheikh lañu mais six mois lañu magante xam nga da ngay dégg médecin yi ñu wax ni doom ju judd sept mois baaxul maanaam morne lay nekk mhm. mais boo boo boo boo juddoo huit mois di nga baax mhm. kon boo juddoo six mois génn goo ci at mi ñoom ñaar cheikh lañu mais six mois lañu magantee xam nga nu leen reyee mhm. kii lañu rey ren kii ñu rey ko déwoon te ñoom ñaar ñëpp dafa mel ni ñu rey kii ren 2017 Ashura 2017 aussi ñu rey ko Ashura 2018 daf daf daf mel ni kon yow loolu daf la marqué mais mais est-ce que est-ce que si boobu noonu yaa li nga xam moo waral assura boobu noonu. lii boobu xam nga tey ku si mel ne ku si mel tey man mii wala ku si mel tey Ousseynou wala Cheikh mi. Hmm. mën na ñëw toogi sa programme rek seetaan assura bi ba ñibbi la du xam carrément que. Hmm. assura bi lan mooy concept bi. Hmm. lan la est tamit say événement doo ñëw tey si biir événement bi gars yi ñoo toog nga fàttali leen mooy concept assura. waaw bare na ñoo xamante ni buñ fa demee ba jóge fa. dinañu xam tuuti ci. événement bi à travers mes chansons. Mhm. ngeen jégal ma ci sama ci ci ci sama way. Mhm. dinañu dinañu ci xam tuuti. Mhm. am na nag sunu nijaay Cheikh Saad bu Ngom. at mu nekk mu tànn benn yonent ci jaar jaaram digganteem ak sunu borom. wax nit ñi daaw maa ngi fàttaliku yonent yàlla Ibrahima. la waxtaane woon. ren euh, dina tànnaat keneen yonent yàlla euh, Yusufa yonent yàlla bare na. yonent euh, yàlla ayoba moom la yàlla tegoon nattu yi sax yi di daw ci biir euh, ay sidditam mm. sunu borom naan ko boo nee un mm, ma dégraté la keroog bis boobu la yàlla teggi nattu boobu ci ci ci ci kawam mm-hmm. ah mm-hmm. euh, yontu yàlla su nekkoon ci biir géej gi ci biiru jën bi mm-hmm. te naan laa ilaha illa nekk ci biir géej nekk ci biiru jën di wax loolu ba yàlla muccal la keroog bis boobu la ko yàlla muccal Mm-hmm. incha allahu rabbi ku ñëw di nga di nga nga xam ñun suñu suñu yëngu-yëngu yëngu-yëngu yëpp mm-hmm. mooy nit ñi comprendre ni bis boobu du bisu du bisu fo parce que suñu borom ci boppam bis bu mu fonk nga xam ni bis boobu du bisu fo mm-hmm. te dégg naa mag ñi di wax ni euh, xëy na yow sax dégg nga ko bi nga nekk xelal ñuy wax ni euh, euh, bisu yowmal xiyaam tam xarit lay nekk mu tombeek àjjuma man gëm naa ko ndax li yàlla def yëpp Mm-hmm. su maam Adama moo ci moom la ñu jaaree. Mm-hmm. ñun ñii ñëpp. Mm-hmm. moo mooy mooy abul bachar. bàyyu mbindeef yi. ci la ko sunu borom jéggal ak li mu ci def yëpp man gëm naa kon bis bisu caaxaan. donc nan ngeen nan ngeen waajalee bis boobu. bi. ñu ngi koy waajal nag fi mu nekk nii weer yëpp ñoo ngi ci. mais daf ci am lu am importance loo xamante ni da nga ko brosser mooy li waral ñu ka ndar ñun ay xale lañu di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa

nañu ba am lu mel mhm. ñi def walu euh, ak nangam am nañu mhm. ay jamono da na fuy dégg mhm. mais événement religieux dignes de ce buy dajale ci place man lolu moy sama rabbi jimi jamono ren 4 quatrième édition bi. projeté dans 6 ans mu nek fukki at. fukki correspondre ak. fukki euh, assura bi may wax. muy mhm. muy fukki fan. Mhm. ci kii yu bees yi ñu àgg ci euh, àgg ci euh, dimension bu mhm. festival de jazz bu Saint-Louis incha allah mais Ahmed dañoo nekk sa ginnaaw. yàlla. non mais yàlla dëgg mais daf mel am ñu nekk sa yàlla moom moo nekk ginnaaw ñëpp moom <laughs> mais daf mel am nañu nekk parce que macha allah événement yi parce que ñëw naa sax événement événement yi ni nga koy ni nga koy ni nga koy déroulé Ahmed. ni muy doxalee ah hmm. taxawaayam donc mu leer ni nu am na lu nekk sa ginnaaw moo xam ay kilifa wala ay staff du genre mais bu doon xam exactement Ameth ñu nekk si ginnaaw. gis nga bokk na ci nekk si sama ginnaaw. Hmm. Saint-Louis télévision comme ni ngeen ko defee. Hmm. xam ni benn jeune la boo xamante ni am na lu muy incarné pour. créer que pour ndar ñaan naa yàlla su ma fi jugee yàlla na yéex sax eh euh, spécial Ashura di am Mhm. te yal na nu yàlla may fekk am naa ci yaakaar am naa ci yaqin boobu mhm. muy daan dem ba jimi jamono waykat di jóge fu ne ci monde bi mhm. di ñëw ci spécial Achoura bu Saint-Louis li may wax lu ma gëm la barke Seydina Muhammad et mën na nekk aussi tamit gëm-gëm la ah. gëm ah, parce que gëm naa ko parce que ci ñeenti at laa toll lii yëpp àgguma fa woon ñeenti at depuis ma tàmbali def événement bi dama commencé jàng événement bi maanaam pas def que aveuglement mais dama commencé jàng bi maanaam euh, histoire bis bi Euh, am naa ci yaakaar. Mhm. Euh, ñu comme ni ma ko waxee ñi nekk suñu gannaaw tey fii ñu bërëb bi ñu nekk muy waaw Muké. Mhm. gëm gëm mbir mi. Mhm. ñëw nekk sama gannaaw. saa ñu télévision ñëw. gëm événement bi ñun ñëpp nekk ay jeunes. ñu ñëw nekk sama gannaaw noonu la ñu bare di ko defee incha allahu rabbi bu ñu yàlla dimbalee ba mu àgg fenn fi nag ñun ñëpp ñoo koy ñoo koy bokkandoo ñu xam ni structure la boo xamante ni ndar lañ ko samp. ah Mohamed Lam mooy initiateur bi mais Saint-Louis télévision wak ñett ñu ngi ci gannaaw di ci liggéey. Mm-hmm. kon jàppal ni képp koo gis loxoom ci biir Ajoura bi rek. Mm-hmm. Euh, jëlee exemple ci yéen ni ngeen ko defee. ci ci wàllum ci wàllum wàllum njàng beeg yooyu noonu. ak mm. tamit euh, fi ngeen si toll yooyu ci wàllum njàngum diine bi laay wax. Mm. Euh, ndax yéen a ci am yenn tolof tolof. comme jàng yi. waaw jàng maanaam ci fi nga waroon egg sànq maa ngi la koy wax mais ba léegi li ma si soxla ci réponse dama ko amagul moo tax mais est-ce que est-ce que est-ce que amu leen ci ay tolof tolof maanaam hmm. ci biir ci biir ci xam nga lu ma wax parce que dogguma la uh-huh. li tax ma posé question boobu je pense que c'est bien aussi ma koy mën leeral cest à que euh, dama gis ni bu maanaam festival day am fii tey ñuy indi fii ay waykat musicien hmm. da nga leen pujum bu mag hmm. ñu way donc je pense aussi ñi nga xamni da ngeen yëngu ci walum bi wala la mëna def ben fuñu bu mag indi leen ngeen mën ngeen mëna participer fa laay waxee tax ma ne ndax amul yeen difficulté seen biir mais lool comme ko ñom defunu ko ñun juk nañu pour pour def ko amé ah, juk bi xam nga juk bi yow kessela tay ndar ndar ndar bu doon xol ñuy def événement bu melni duma ni amul mm. gisuma mm. mais tay man suma ma laajoon dama nan kenn la muy amé la mm. n'est-ce pas donc tey lii bu fekkoon gis nañ de trois à quatre yoo xam ñu ngi koy def mën nañu carrément kat ñoom ñu ngi dema seen bopp mais tey yow la yaa ko fiy def loo xam ne chaque année la ñëpp xam ne kat boo tam xaritee ba si ëllëg si je pense mm-hmm. la mm-hmm. Ameth laa mooy organiser lii mm-hmm. est-ce que jotul aussi tamit mairie bi li muy def di créer ay concerts yu mag di woote ay artistes yéen ñi defal leen même chose dina ñëw incha allah dina ñëw am ah, tontu ma kañ lay ñëw bëgguma nga raay sama bëgguma nga raay sama question bi dama bëgg nga tontu ma si eh, eh, wala wala wala wala yow gars yi dafa dugal ba si wax wala maire yi beeg yooyu noonu mosunu ñëw sama sama événement <laughs> eh, Cheikh uh-huh. yalla xamna na ni mosuñu ñew ci sama événement. Mhm. ñom wa commune bi. ma ngi leen di xaar nak mais euh, ci gëm-gëm bi maam mhm. bis dina ñew kenn ku ci nekk dañ ci bëgg dugal loxoom li gëna am solo moy li wolof di wax nimbal la ca fekk loxol borom. Mhm. tay depuis may tambali su fekkon euh, bo ba léegi ma ngi tok naan. jàppale leen ma pour ma def ko du ma agsi fii mais bi may tambali ci sama propre moyen la commencé ba fim mu nekk nii am ñuy ñew lu mel na comme ni ma ko waxee Saint-Louis télévision ñëw ci jàpp parce que li ni Euh, xeeb bu ma ko de. Mhm, macha allah ah, xeeb bu ma ko. macha allah bu baax a baax. macha allah gars yi la donc ñu ngi si ñaare ñu ma ñu jeex na ah. wala mhm. temps bi jeex na donc euh, juste rek tamit nga ñu dégg baat bi. Mhm. gars yi mën a xam Ameth mii ñu invité mooy kan. alu <laughs> baytu mamada waa kër yonen ñoom bakkat la da faq daw wa فابكي ما استطعت إن خليلا في عزيم من المصاب بالبكاء كل يوم وكل أرض لكربي ñoom minhum karbala wa asura loolu ci asura bi lay wax Ah, waaw man doy lu ma de <laughs> mais ba léegi rek dégg nañu donc la ngay tàggatoo ñi nga xam ñooy doon seetaan ak ban message nga leen di waaw maa ngi leen di remercier bu baax a baax waa Saint-Louis télévision di ñaan mhm. yàlla euh, def visibilité bi gën a ñëw incha allah rabbi te am nañ ci yaakaar mhm. di woo ñëpp ci bis bi nga xamante ni moom la ñuy def mhm. euh, tamxarit ba sa ëllëg sa fële mhm. ci Stade Joseph Gueye maanaam terrain basket bi nekk ci sanc ba mhm. ren nekk ñeenteelu at bi muy entrée libre et gratuite incha allah bu ñu julee <laughs> timis ba pare xam nga bis boobu nit ñi dañ ciy faral di woor bu ñu sëlmalee rek am na daayira buy tàmbale muy euh, waa kër Serigne Saliou muy ndaw Cheikh euh, Cheikh Thiouna Ngom yi. Cheikh Ngom bi waaw noonu laay def mhm. damay mhm. généraliser. Mhm. ndax at mu nekk dañuy tànn benn jàngkat ci benn tarixa mu ñëw ci événement bi. at mu nekk ñu tànn benn mag. mu mag moo xamante ni dafa dafa marqué. Mhm. Euh, dundam ci tàgg yonent bi mbaa alxuraan. Mhm. ñu décorer la ko. Mhm. def nañ ko fii ak sunu baay Ablaye Niang sunu Ablaye Khadim Sarr. Cheikh Sifir. sunu maam Magne Samb. jànkat yëpp la ñu bëgg a wër mag ñi pour teral leen. ren incha allahu rabbi am na ñun tànnaat. mais am na ñaar ñoo xamante ni. dañu bëgg réviser seen dund allahu rabbi muy euh, rubrique bu war a am muy la vie et l'œuvre de. Euh, sunu maam imaam sëñ taa moo doon imaamu euh, juma mawa euh, kii maaw si la mhm. nekkoon nag firikat mhm. ak sunu maam Diatou Bab gi moom it ñu tuddee woon ko le rassembleur mhm. da daan fédéré da daan boole mhm. euh, dundin yooyu lañu war a réunir ñaar ñooñu lañu tànn insha allah rabbi ren pour la euh, rendre leen hommage mhm. maa leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di ñaan yan nañu yàlla may ñu fekke ko ak jàmm ah di woo waa ndar yëpp képp koo xamante ne rek yàlla mën mën loo na la ko nga ñëw ci tamxarit ba sëllëg sa fële ci terrain basket bu sanc ba ñu tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi xaar sunu naw la jànkat yi yëpp ñëpp 19 h le programme de di mhm. ba bu euh, di di di rabbi. donc mu melni euh, amna solo donc amna amna ci ci dalal la dalal ah, tamit ci waxtan bi machallah mhm. dafa euh, di remercier bi fii la ñu tourné émission bi. Mhm. muy restaurant restaurant Mouké nga xamante ni ñaari at yëpp ñu ngi ànd ak ñun. Mhm. ci ci ci ci ci événement bi. comme comme partenaire. Euh, am na groupe yoo xamante ni Dakar la ñu jóge mhm. bu ñu ñëwee fii la ñuy. xewloo macha allah ñoom it ñu gëm concept bi rek ñëw ni kaay leen bu ngeen ñëwee seen artistes yi nga xam te ni euh, ñooy jànkat jóge ci biti bu ñu ñëwee fii la ñuy la ñuy la ñuy xewloo. ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di gërëm encore une fois Saint-Louis télévision incha allah rabbi daanu dégg télé bi. incha allah amin donc donc am na solo ah donc comme ni nga ko waxee rek waa mbokk yi tamit ñoo ngi leen di loolu am solo boo nekkee ndaw créé lu nu mel donc il faut que am ñu la jàppale. waaw donc ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm aussi tamit euh, waxtaan bi macha allah ni nga répondre question yi am na solo di gërëm tamit sama gars yi xam ne ne ko si ginnaaw muy Nobisto ak euh, Cheikh. ñu ngi leen di siyaaru bravo xës nee naa ko xës <laughs> pro ah copain wu noobu quoi moom moom ñoom ñaar ay xarit la ñu mag Ousseynou donc di leen siyaaru baax a baax di di waxaat rek fàttalikuwaat émission bi penc bi képp koo xam ni jàpp nga ne sax xam-xam seel na plateau boo xam ni dal nañ fi ñëpp waaw donc di joxewaat numéro téléphone bi nga xam ne pour ñi nga xam ne bëgg nekk en partenariat ci émission bi wala sponsor wala bëgg participer muy 77 528 61 95 di gërëm ñëpp nag di jox dig ak daje ci yeneen numéro incha allah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ameth jërëjëf. jaajëf kontaan naa merci beaucoup.